maanaam la commencé haza nag mën na firi lii man na firi kii wala lii te lay te luñ góoral mën na firi kii muy nit bu góor wala muy firi lii loo xam dañ ko góoral nee na mu ne haza kii ibnu hamid doomu hamid la wa hazihi ke bintu yaasir doom yaasir la comme haza ak hazi lay jàng mooy haza hazi ismu ishaar lañ dañuy haza mën na firi kii tey góor wala lii luñ góoral hazihi mën na firi kii tey jigéen wala lii luñ jigéenal luñ jigéenal nag di nga fekk benn taa boo xam taawul ah, marbut lay lañ koy woowee même benn taa bu ñu ron la mu nekk ci mu nekk baat bi lu ëpp ci ah, ismu nee na lu ëpp ismu yoo xamante ni ismu jigéen la day am taa boobu noonu lu may yenn yoo xam ne comme sa ay Layla ay Hawa genre duñ ko am lu ëpp ci kii daal ah, dañ koy am. mu ne haasi kii bintu yaasi doom yaasi la nee na ibnu nee na ibnu ah, ibnu xaamid doomu toog la wa bintu yaasir doomu yaasir waaqifun aji taxaw la nee na man haasa kii kan la man wax nañ la suñuy wax ak nit man la ñuy wax man mu firi man haasa man lil aqil la fekk dañu ne maa mooy li gayr aqil mooy loo xamante ni amul xel mu ne maa haasa kii kan la mu ne haasa li uxtu muhandis mbokku ingénieur bi la tey jigéen uxtu mu mooy mbokk mu jigéen axun mooy mbokk mu góor nee na ndax moom ay nee na ay doon ba tey muhandisun maanaam ndax euh, muhandis ingénieur la waaw mu ne ko la hiya moom tabibatun mooy sage femme mais ñi nga xam ñooy toppatoo waaw ay ay maladie ci biir hôpital yi nee nee na nee na sayyaratu man haza nee na oto kalla maanaam oto oto bi oto kalla haza li sayyaratul mudir mu ne nag mu ne mooy maanaam mooy oto directeur mooy mudir day gis école su ñu nekkee maanaam bureau bi mudir maanaam directeur moom la ñuy woowee mudir ba mooy gérer affaire yi lépp man ma xaasa lii lan la xaasa lig mik waax lii faire la mooy faire à passer loolu la ñuy woowee eh, mik waax loolu la ñuy loolu loolu la ñuy woowee eh, loolu la ñuy woowee mik waax moom may faire à moom la ñuy woowee mik waax mu ne xaasali mikwaax mooy fer la ma moy fer à passer comme wax la kii lii nga xam ne amul xel tey góor nee na maa xaa la maa xaasi lii la xaasi lii mikwaaxun fer à passer la mooy fer yi ñuy passer yére rek waa gis nga bi mu bëggee ah, maanaam bi mu bëggee junj loo xamante ni dafa dafa jigéene loo xamante ne amul xel maa lay utiliser tamit lu am xel man lay utiliser comme maa ak man suba eh, jëf nañ foofu noonu eh, li man xaaza lii ma lii ma li man xaaza saag moo ne ci kanam muy laaj lii lii la kan moo ko moom mu ne xaaza lii li xaalid ñeel na xaalid maanaam xaalid moo moom saag boobu noonu adaraajo anas xaazi ndax eh, adaraajo anas ndax li vélo axmel xaasi lii muy laaj ndax euh, velo bii nii vélo anas la mu ne la xaasa lii daraayatu amaar vélo amaar la nee na xaasi nag jadiidul lu bees la ba tey euh, vélo boobu noonu moom lay melal nee na wa daraajatu anas dara wa anas nag qadimun aji màgget la qadim moom mooy lu yàgg mooy lu xam lu yàgg moom màgget mën nañ ko lu yàgg xamante ne lu màgget la xaasi lii saatul montu saatu aliyin montu la nee hiya moom jamilatun aji rafet la jiddan lool nee na xaasi nee na xaasihi lii saatu aliyi nee na xaasi lii aliyun hiya moom jamilatun aji rafet la jiddan lool xaasi lii milaqatun moom mooy cuillère wa xaasi xijirul cir la waxaale li xijirul moom mooy firi cin moom mooy marmetal ba léegi nee na al milaqatu nee na al milaqatu kudu bi fil xijiri mu ngi si biir cin comme da gis ne maanaam comme gis ne maanaam sooy firi loo xam sooy wax loo xamante dafa nekk ci biiram fi ngay utilise moo na moo tax ma almilal qudbi fil qidri mu ngi ci biir cin bi haza li baqaratul baqaratul fallaahi lii kii nii la baqaratul fallaahi moom mooy nagub wa baykat bi haza li anfun bakkan la wa haza la fammun ah, gémmiñ la haza li uznun uznun wa nee na aynun ah, bët la jàppal ne maanaam cër doomu aadama lépp loo xamante ni ñaar la rek boo koy naanaam boo boo ci def ismu inshara wa haasi nga fay dugal bu fekkee loo xamante ne benn la benn moom benn kese la suba haasa ngay def su fekkee nopp la xam nopp ñaar la haasi ngay utili ngay utiliser su fekkee ne waaw ne su fekkee eh, su fekkee ne nopp la haasi ngay utiliser maa su fekkee bakkan la haasa ngay utiliser ndax sax no eh, mosoo gis ki nga xamante ni ñaare bakkan la am nee na wa haasi lii yaddul nee na la xam loxo ñaar la moo tax mu utilisé xaasi li rajulun ah, tànk la ba tey waa ba tey ndaxte tànk ñaar lay doon iqra jàngal waktub ta bindi yaay jàng yaay bindi lii duma ko firi yaa koy firi teg si nag yaa koy maas mu ne haza masjid wa haazihi comme lii yaa koy jàng ta nga ko waaye na man naa la mu jag baat fi waaye na yaa koy firi sa haza masjidun wa hazihi madrasatun man hazihi hazihi ukhtu abbas haza dikun wa hazihi dajjajatun haza ibnul mudir wa hazihi bintul madar bintul mudarris nena hazihi ammu yasir aina muna nena ay na xidrul laxmi xidrul lax moom mooy wa naaga fi moom mooy ci nub hiya moom fi salaaja mu ngi ci li tamit baat bi jàngoo koon salaaja moom mooy seddalukaay rek moom mooy e, frigidaire moo tax ñu koy wooye salaaja nee na haza baab waha wa hazihi waaw nafiza nag moom mooy firi fenêtre mu ñu la tamrin ma di la defal la ma haza ak ma léegi nag yaay xool yi nga xamante ni maanaam xaas yi lañ koy dugal ak yoo xamante xaala lañ koy dugal mu indi mu jóge indi la big may big nag moom mooy firi xalam baytun moom mooy eh, kër nag moom mooy firi waaw kër nag baytun lañ koy woo ci arab tànk nag moom mooy rijil gémmi eh, gémmiñ moom mooy gémmiñ nag famm lañ koy woowe ci arab frigidaire ñu koy woowe salaaja xudu milax eh, montre saa velo daraja su bii nii cin la xidru lu nekk si biir moom mooy moom mooy kuddu milaax ak miftaax moom mooy caabi ak lii nii lii nii eh, jàkk la masjid kitaab moom mooy téere sayyaara mooy oto yaddu moom mooy loxo miqwaax moom may fer à passer najmun biddiw kursiyun chaise anfun bakkan baab buntu eh, xamis moom mooy firi chemise nee na iqra jàngal almis almisaydiki wak nena kawin ninga ninga forme nena wa kawin na nga forme jumla ab jumla ala xiraari yu mel ne ñoom xam nga dalaa ñëw ne la muhammadun muhammad taalibin taalibe la aminatun aminatu taalibin taalibe eh, bu jigéen la comme mu ñëw nee la xaamidun xaamid tabibatun docteur la ne la fatimatu comme yow yaay def beneen boo xamante ne dafay niroog moom ndaxte bu fekkee ne lu maa lu nekk ci gannaam amul taawul maanaam nekk luñ jigéene waaw bu fekkee lu nekk ci lu nekk ci gannaam luñ góoral la boo ci dugal eh, dara waaw sooba da nga koy def muy góoral fekkee ne luñ luñ jigéene la lu moo nekk si kanam sooy def li nga xam moo nekk si gannaam day jigéene moom tamit xoo moom muslimun jullit la comme boo ne hiya moom muslimun bi da nga koy changé soo nga def ko jullit bu jigéen nee na baabun buntu muxlaqun luñ tëj la naafisatul fenêtre bi ne na almindil mooy mouchoir wala serviette ba léegi wasi xun aji tilim la nee na alyaddu mooy loxo mooy loxo nee na ashaayu mooy ataaya xaarun aji tàng al alkahwa waaw mu may ay ah, kafe ba léegi masjid may jàkk baidun aji sori la almadrasu école bi waaw nee na ataalib taalibe taalibe bi mari maridun aji feebar la ak taalib taalibe bu jigéen bi soo jëlee marid nga teg marid bi soo koy teg am na noo koy defee waa nekkit ak taaliba taaliba taaliba bu jigéen maridun aji feebar lañ koy am na leen lañ fay yokku ne alxisaan fas bi sari yoon aji gaaw la asiyaaratu oto bi nee na waaw alqamaru bi jamil aji ah, jamil rafet la achamsu jant bi nee na al abu nee na al aji toog la al ummu yaay nee na sax yi na nga wéral jumla aata jumla dikki nee na jumla yi nii yaa koy wéral nee man haza saagu kan la nee na xurfatu mi nee na moom mooy néegi miftaaxun caabi haza siyaaratu tabib haza lii ah, oto ah, oto docteur bi nee na haasi lii miftaaxu siyaaratu lii mooy caabi oto bi lii nag yaa koy defar léegi lii lii yëpp benn baaxu si yaa koy eh, léegi yow yow benn baaxu si léegi yaa koy defar ko ba baax maa da ko xaw yàq pour yow nga war ko ah, defar mu ñëwaat di wax ne ana sayaaratu ana ana sayaaratu ana oto bi ne la xëy moom fi chaari mu ci mbedd mi mu ñëw ne iqra jàngal ak tur na ma bindi ma dabtil awaaxil kalimaati ànd nga maas mu jag baati nee na nee na waaye nag lii nag yow yaa koy maasal sa bopp danaa jàng te bindi te nga ma doptil awaaxil kama ànd nga maas mu jag baati léegi man dama koy jàng yaa koy maasal sa bopp li hamid wa zalik li li muhammad haza liman haazih haaza liyasir allah al mushriq al mash wal maghrib mashriq wal maghrib mashriq moom mooy comme ça penku bi maghrib moom mooy soow bi rek nee na alkalimaatu jadi baat yu bees yi nee al mikwa mikwa moom may farapaase ba xawtu mooy fi nag usnun nopp umun yaay naafisatun fenêtre darajatun mooy velu fallaax béykat al yaddu loxo asalaja moom mooy eh, moom moom mooy consulateur ba léegi waaw ndax sa derekaay la rek waaw asal xam nga asal jo moom mooy firi eh, glace ba léegi mais asalaja waaw moom mooy firi sa derekaay moom mooy consulateur ba léegi jiddan lool al nee waaw al mil aqa moom mooy al mil aqa tun almilaqatu moom mooy cuillère ah, ah, moom mooy kuddu anfu ah, anfu moom mooy fini anfun mooy firi bakkan rëjul tànk nee na kaafootu mooy firi kafe xidrun cin fammun gémmiñ nee shaayun ataaya sare on mooy lu gaaw darsu saabe bi mooy darsu juróom-ñaareel mooy darsu septième maa haaza man haazihi kii kan la maanaam nit xam nga su ne loo xamante ne amul xel la maa haasihi la lay wax waaye nag lu am xel la euh, tey ne lu am xel la tey moo tax mu ne te jege moo tax mu ne man haasihi kii kala mu ne haasihi kii aminatun amina la wa man tilka nee na kaye kala maanaam lu maanaam loo xamante ni dafa góore te sori tilka la ñuy def tilka la ñuy eh, maanaam tilka la utiliser nga xamante ni dafa jigéen te sori eh, dafa góore te sori tilka la loo xamante ni daf wame li nga xamante ni dafa jigéen te sori teeke la ak li nga xamante ne nag dafa sori te euh, lu góor la loolu zaalika ngay def wa man tilka keeka la mun a tilka ke fatimatun fatima la haazali tabibatun haazihi kii tabibatun docteur la wa tilka kale nag maridatun sage-femme la ak tilka kale mumarridatun saal faam la xaasi kii nala hind muy jóge hind waccil ka kee minal yaabaan muy jóge yaabaan nee na xaasi kii tawilatun aji gudd la maanaam ku njool rek waccil ka kee nag xasiir aji gàtt la comme xaasa xaasihi xaasa wax nañu la mën na firi xaasa mu mel ni nga ni kii wala lii te mooy luñ góoral xaas yi mën na nekk li nga xamante ni kii wala le wala lii luñ jigéenal tilka nag mooy tilka moom lu jigéene te xaw a sori zaalika lu góore te xaw a sori zaalika nga fay dugal man haaza kii kan la haaza kii xaamidun xaamid la wa man zaalika kay kan nag zaalika kay aliyun aliya a dajaaja ndax lii ganaar la laa tilka battatun lii moom mooy kanaara maa tilka leeral la mu nekk tilka baydatun moom mooy nen haadaa li sayaaratu li madar haadaa li sayaaratul mudarris li oto mudar jàngkat bi la waa tilka lee li saya wa tilka lee sayaaratu xaamid mu ne moom may oto mudarris bi mudir mudir mooy oto mudir mudir suñ ko waxee moom mooy ki nga xamante ne moom mooy comme directeur rek nee na asaatu abbas ndax lañ may montre abbas haasihi lii andeen haasihi lii haasihi lii ne ko la haada saatu xaamil lii montre la tilka lee nag saatu abbas moom mooy montre abbas zalika diikul lii ginaara wa tilka nag dajaajatul lii ginaar la suñ ne diig moom mooy ginaar seq bu góor rek dajaa moom mooy ginaar bu ah, jigéen tamrin lay ay jéemantu la moom mooy exercice iqra waktub da nga bind lii yaa koy jàng bindi lii da nga koy jàng bind naa ko firi waaye yaa koy jàng haasihi madrasatun lii école la wa tilka lee nag jaamia jaamiatun moom mooy jaamia suñ ko waxee moom mooy comme université nee na zalika lee ximaarun mbaam la wa tilka lale nag waaw baqaratun nag la zalika lee nee na zalika lee mas ndax li jàkka la nga ne ko la tilka lee nag madrasatun école la haasihi lii jamalun gëlëm la gëlëm la watali kale nag naaxatun ah, gëlëm bu jigéen xam nga jamalun moom mooy gëlëm bu góor naaxatun mooy ah, gëlëm bu jigéen haasi lii madrasul école la watali kale nag to nee na mudarrisun la watali kale ne talibatun taalibe la haasa lii kalbun xaj la ah, moom kat xaj wazalika la nag xittun muus la haasa kii baytun kër la baytul muazzin moom mooy kër notukat bi watali kale nag azali baytul muazzin moom mooy këru noddukat bi wa tilka leneen nag xadiqatu taajir moom mooy jardin commerçant bi nee na nee na ashir ñol ci baati dikki bi ismi inshara ci ismu inshara lil baid ñeel lu ah, lil léegi nag yaay junju ism ishaara yi nga xam ne dañ junju lu sori muy tilka ak zalika tilka tilka xam nga ni lu jigéen te muy lu sori moom la koy junju zalika nag moom mooy lu maa loo xam ne dafa sori te loo xam dafa dafa sori tey luñ góoral ummul moom mooy firi yaay min aqatun min aqatun moom mooy firi kii nii kuddu xamis mooy chemise baxaratu nag muhandis ingénieur sari nee na sarir mooy firlal jamalun gëlëm nee na abun nee na abun bàyyi ay ñun bët ay mën na firi bët mën na firi jëmm mën na firi fi ndox di génnee noonu mën na ko firee ay nu mbaléegi xidru mu may fi cin maktabun taabul mu azin noodukat xadiqatun jardin battatun nen xalamun big nee na xajarun doj wala xeer lañ koy wooye naafiyatun wala fenaatin naaqatun gënee bu jigéen mu maridun sage femme taalibatun taalibe al kalimaat jël baat yi bees yi nee na al mumarrid al mumarridatun moom mooy sage femme al muazzin moom mooy al muazzin nee na al muazzin moom mooy muazzin mooy noddukat waaw mooy noddukat jàkk yi rek waaw alxadiqatu jardin bu jigéen al bat nee na bat la batun moom mooy fi men al nen al bay battatun moom mooy waa kanaara baydatun moom mooy firi nen nee na asmaul inchar lil xarib isma yoo xamante ni dañ te muy lu jóge may haza muhammad hazihi aminatu haza nag nga lu góor moo ne ci kanam moo moo nag lu jigéen moo ne ci kanam moo tax mu ne hazihi asmaul inchar lil baid ismin shaar indi na ismi yoo xamante day junju te du mooy sori sori mooy zalika tilka moo tax mu nekk zalika eh, na zalika la xaamid nu nag zeynab zeynab la zalika maanaam lu góor maanaam lu maanaam day nekk lu góor loo xamante góor la wala lu ñu góoral wala wala dara loo xam ne dañu góoral tilka nag day nekk maanaam day nekk jigéen wala mu nekk loo xamante dañ tur xam ne dañ ko jigéenal dine tur leneen comme comme dars ñetteel bi fii la yem in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh